xeex tamit dafa am yoon dafa am nooy xeexee di xeex di gëmu di dóor loolu du xeex da ngay xam fooy dóor booy xeex ñun dañu ne grève dem grève fekk gouvernement amul wala dem grève fekk ni euh, gouvernement baa ngi nekk en campagne électorale loolu du yenu maanaam parce que doo am koo waxal pour nga négocier dafa am koo war a waxal léegi moo taxoon ñu ne ñun li ñuy gën a mu yell mooy nañu xaar ba gouvernement bu bees bi taxaw ba ñu demee ministre bi ñu xam ne kii mooy ministre bi ñu wax waxtaan ak moom léegi nag bi nga xamee ne gu ministre bi bees bi tegu na fas yéene nañu wax ak moom parce que ñun gëm nañu ne ñun tey jii lépp loo xam ne liggéeykat maire yi am na ko grâce à ànd gësëm la ci Sidé Ndiaye ak Mballo Dia Thiam ñoo xeex ba xeex bi toll fii amul nag benn syndicat la ko mën a wax wala benn central bu la wax ne mu mën a xeex lool